Eh, ay waay ñun nag fan lañ jëm ak sunu soxna yi ay soxna yi yërëm leen ñu tuuti te yàlla tax gaa yi jëmm joojee ngeen di gis ci ginnaaw moom la ñuy wax Achraf Hakimi Achraf Hakimi nag ab marocain la mën naa ni coupe du bi weesu ñëpp ràññee nañ ko ci jaloore am solo yi nga xam ne jot na ko def ak Maroc mais ba mu ci jógee jamono ji mu ngi PSG jaar na Inter de Milan jaar na Real de Madrid mën naa ni fa lañ ko formé mu doon jour bu am avenir Achraf Hakimi moomee nag as ndaw su jigéen moo dem ba police di annoncé que ni Hakimi moomee daf koo siif waaw te ko bëggoon a jëfandikoo waa mu doon loo xam ne nii mën naa ni cas bu la waaw mais lii ñuul ci soo bi mooy que soxna soosee nga xam ne da koo tuumaal soxna si moom nangu a porté plainte Asap Hakimi moom daal daa ñëw pour dénoncer rek bañ ko waxee mu porté plainte dafa lànk léegi nag mujj gi waa yoon pile police ñoo mujjee jël. loxo yi euh, mbir mi seeni loxo ngir mën a euh, topp procédure bi xool lan la affaire yi demee nan la demee carrément waaw mais Asap Hakimi ba léegi moom yooyu ci yàpp bi waxaku ba léegi waaw mu doon loo xam ne nii muy commencé dugg ci football mondial te dina perturber joueurs yu bëri dina mën naa damay ragal sax léegi joueurs yi dinañ am ay écart ak yenn fan yu jigéen yi waaw nag lii jëmul kër yàq nañ ci karam carrière Benjamin Mendy waaw Euh, franco-sénégalais boobee ci ci ci ci six voyelles yoo xam ne nii benn amu ci ñu tuumal ko ko te benn amu ci yàq ko ci carrière Greenwood nga xam ne gone gu ndaw la nekkoon Manchester United amoon avenir pat gauche bu exceptionnel moom it carrière am na à côté xaw ma nag dina retrouver niveau am ou pas et d' autres joueurs yoo xam ne nii ñu ngi leen ci euh, ñu ngi leen ci joxoñ baaraamu tuuma Dani Alves yàggut Neymar naka noonu Ronaldinho et d'autres joueurs su ma doon lim du ma fi jógee ak yenn homme de valeur yoo xam ne nii sax loolu loolu lañ leen tuumaal ba jamono ji mën naa ni seeni carrière ci lépp luñ nekk noonu dafay mujjee yàqu carrément ñi yàlla leen yàpp la ñu nekkaat ci temps moo tax gaa yi ku mën a maytu nanga maytu yéen jeunes yi nga xam ne yéen a ngi doog a débuté ci wàllu football lu ngeen mën a maytu gën a rayante entraîné maytu yenn xale yi jigéen ñi góorlu ci seen bopp noo di ngeen atteindre seen objectif kuy roy na nga ci Sadio Mané laa taqarabu zina bul laal bul jege noonu la koy doxalee ba ker baak niveau bi mu toll nii doon noir macha allah waaw nga xam ne ni ñuy marginaliser noir ni lañ tegee ci côté mu ñëw fës ci kanamu ay balan wan leen ne moom da ngeen ñoo marginaliser waaye dinaa leen féetee kaw muy kan Sadio Mané suñu international Sénégal li ko may mooy que màndu na dal na teey na tey du dugg lu mu xamul Sadio doo ko gis ak mukk ay affaire de jigéen bu waat ak ñoom seen moo tax kenn du ko dugal ci kàmb yooyu cas bi daal critique na ma leen xaar ci commentaire yi. nan ngeen gisee jëf yooyee yéeme na daal yàlla